ay kàddu di wéy di tukkee ci jafe-jafe yi dox diggante baykat sàmmkat ci diwaan bu Ross Béthio ginnaaw ñoom nga xamante ni ñoom ñoo di baykat yi sàmmkat ya ca seen di dalusinak si nag indi ay leeral di xamle rek ni ñoom ñi yoon ni war nañ fa jaar nyifajar a dem sami ji sax mënatuñ koo am loolu yi tax ñuy xamle ñii di autorité yi war nañu dellu si nag ngir saafara bi la situation. àll bi yëpp nañ ko yi sàmmkat yi amuñu fu ñu sàmmee àll bi yëpp béy nañ ko mbedd amatul parce que ay mbeddu 2 mètres 3 mètres xamante ni téeméeri nag juróom fukki nag xajuñu fa bu ci nag yi jaaree béykat bi mu ni sàmmkat bi waroo fi jaar bu mu indi ay plaignants ñu ciy gorante ñu ci reyante ay bakkan ñu ciy rot loolu état bi war na ci jël ay mesures mu jàppale sàmmkat yi jox leen seen gëdd. parce que ni béykat yi bokkee Sénégal noonu la sàmmkat yi bokkee Sénégal mais sàmmkat yi amuñ seen gën. naka noon noonu bokk na ca leneen loo xamante ni ña ngi koy ñaawlu moom moo di kii di euh, sàmmkat bi nga xamante ni moom ña ngi ko teg loxo te dafa am li jëm ci wàllu certificat médical boo xamante ni laaj na mu noppaloo keroog vendredi bi ñu amee fii problème euh, sàmmkat yi ñu ñu ñu ñu dem ci tool yi bi ñu demee ci tool yi. ci piste bi la jaar ñu ngi jàll euh, béykat bi mu gàttandu leen dóor ko sàmmkat bi feyu mu cor ko ñu jàpp sàmmkat bi jàpp pàpp sàmmkat bi tëj ko fi wuñ ko mu génn ba sàmmkat bi ñëw ñu tëj ko pourtant sàmmkat bi bi mu jógee hôpital bi mu ñëwee dañ ko dañ ko dugal ci kaso bi mais béykat bi bi mu jógee hôpital ñëw def mel ni moom deful dara te ñoom ñoo bokk xeex bi parce que kële lu mu yegg ci méttit loolu kële yegg ci méttit donc ñun dañu bëgg état bi yoon mu jël matukaayam bu ñaar xeexee ñoom ñëpp mu teg leen ci yoon ñu bokk ndey bokk baay maa ngi nag masawu euh, béykat bi ñu gaañu maa ngi masawu sàmmkat bi ñu gaañu maa ngi interpellé ñi nga xamante ni ñoom ay ñoom ñooy autorités yi nañ ci jël seen matukaay ñu bañ a bàyyi population bi ak seen bopp ñuy fajal seen bopp. leneen nag ñu koy ñaawlu mu di ay kàddu yoo xamante ne béykat yi la ñuy leen sax ni ñoom ñoo ko yëkkati.

nañu bàyyi seen xel soskat yi toujours ñu bàyyi leen seen xel parce que sinon ñoom dañuy jaxasee doomu aadama yi nit sooy wax da nga wax lu leer. tey jii nag seen kaddu ñuy woo ñii nga xamante ni ñoom ñooy yore lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ngir naka ñu daal di saafara li nga xamante ne dox na ci diggante baykat ak sàmmkat. président ak premier ministre. ak ministre de l'élevage ak ministre agriculture ñu wàcc ci terrain bi ñu xam lan mooy jafe-jafe terrain bi digant béykat ak sàmmkat ñu régler ko mu jeex parce que il est temps que mu nous ñun duñ fi nek comme ay béy sàmmkat yi ak béykat yi ñu ngi reyante 24 sur 24 té autorité yaangi fi euh, dañu wara wacc ci terrain bi ñu régler len problème bi ba ñom ñaar ñëpp ñu nek ben bokk ndey bokk bay parce que munoo béy te sàmmoo mais munoo sàmm tamit té béyoo il faut rek ñu dimbali nous ñu am zone yu ne la jurgi mais fekk jurgi amuñu jëm ci rek lañu toujours problème dana am donc nañu dimbali ci zone pastorale suñu suuf bu des filles ñu yob fa ndox bu neex muy am ñax ñuy fay comme boy li ñuy ndox ñuy très léeg nag doon génn boo xamante ne ñii di sàmmkat yi sukkandiku nañ ci sax ngir wootee jàmm ci diggante baykat ak sàmmkat waaye nag woo talal loxo ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ngir nag mu indi ay saafara jëmale ko ci xëccoo yi nga xamante ne dina dox diggante baykat ak sàmmkat waaye nag ca loolee ñu bëgg ci tamit ñu fexe rek yaatalal leen ngir ñoom sàmmkat yi nag ñu am foofee nga xamante ni dinañ fa mën a sàmm ci li nga xamante ni moom moo di jur gi ba nga xamante ni lépp lu jëm ci diggante baykat ak sàmmkat laale yi nga xamante ne faral na di dox seen diggante loolee mën a saafarawu ba faaw.